ji jiya Mr depuis États-Unis d'Amérique côte ouest Les drones, côte ouest voilà gars dama vidéo fait une vidéo ci Ousmane Sonko tontu Yum, tante, Youssou ci de défendre les médias, contre observateur TFM euh, bëgg nañ wax ci lan xale bi ko jiiñ siif nee na dañ koy faral affaire bi dañ ko bëgg nëpp nëppal bëgg nañu wax ci Mimi ture mi nga xam ne dafa génn Benno Bokk Yaakaar waaw mais gars yi nañ wax ci président Sonko parce que man maa ngi nii Amérique boobu léegi mënu ci woon wax il y a deux ak coalition Yewwi Askan Wi génn nañ ñu def déclaration man nag Sénégal laa nekkoon temps yëpp. ñu gis ne après élection yi depuis ba Sonko déclaré candidature am boobu ba léegi waxatul dara Sonko waxatul dara mel ne dafa ragal man nag newoon naa leen président Sonko dafa changé euh, ni muy xeexee nekkatul di attaqué Macky Sall comme ni mu ko daan attaqué waaye bii baa ba ñu ko gisee mu génn Sonko dal na ci Macky Sall wax ne 15 mois moo ko fi dese mais ba léegi déggu leen Sonko mu tëkku Macky Sall. neko do fi defi troisième mandat gay man ma Mister cheikh bama nek Sénégal di len defal analyse ñu bari nan ma Mister cheikh da ngaa changé discours da ngaa changé discours lan motax Sonko génn wax presque 30 minutes waxul ben yon Macky Sall bo fi waxee troisième mandat dinañ dal sa kaw waxul ben yon Ismaïla major Fall bi nga jël pour troisième mandat Sonko waxul ben yon mu ne ko Badio Camara bi nga jël pour. troisième mandat parce que comme ni ma leen ko waxee man monsieur Cheikh président Sonko xam na ne bu nee Macky Sall doo fi defee troisième mandat Macky day mer ba moom it mu ne ko doo bokk waaye Sonko li mu wax leer na nee na amul benn mbindeef buy dund ci kaw suuf bu ko mën a bokk ci élection yi waaye ba léegi waxul amul Ben mbindeef bu mën a fexe ba Macky Sall bokk ci élection 2024 Comme Sonko dafay éviter sujet boobu bu leen fàttali président Sonko moo fi waxoon Macky Sall même bu euh, même bu jallé du am vingt vingt quatre vingt la dama kon mom dafa melni Sall dérangé comprendre waxone na fi aussi Macky Sall bu le troisièmement troisième mandat du jall légui lan lañu gis le discours bu bees bi Sonko def discours guerrier bi nga dañ ko don xaar ci ko Sonko sa 800 millions yi nga jël def ko ci sa image xamuñu fo jëlé say milliards Sénégal ya tax ba fu nek mu nek ci ay guuta ndax dangaa lebal lebal ba Sénégal amatul desatul dara mu wax nak attaqué Youssou Ndour parce que Barthélemy Dias dafa génn mu euh, GFM euh, ni muy def yenn groupe de presse li ñuy def baxul parce que ñom du acte deug duñu du deug légui euh président Sonko dafa génn mu attaquer Youssou Ndour waaw parce que nee na yenn patron de presse yi ñu dara lu dul créer seen groupe de presse ngir forcer def benn pression ci Macky Sall mais moom nee na du président boo xam ne dañ koy xoxatal wax na fa ba way way Youssou Ndour ah satellite satellite yaa ma yónni woon xaw ma leen ah, way Youssou Ndour boobu ah, ñëpp xam nañ wayu satellite bi ba Sonko sax moom dafa mën way bi dafa mel ne moom wax dàq sax man ah, ah kon ñëpp xam nañ ne Youssou Ndour lay waxal kon lan la ñu mën a jàpp ci discours Sonko li ñu mën a jàpp ci discours Sonko mooy wax na ne Macky Sall 15 mois la moo la fi dese ça veut dire que moom jéemul xeeb pour déloger ko wax na nag euh, waxul sax ba tudd ci ñoom Karim Xrum Xax ñu ñuy jàpp ñoom Cheikh Oumar Diagne ñu ñuy jàpp parce que nee naa leen Sonko dafa changé discours dafay bàyyi Macky Sall mu def lu ko neex comprendre nga affaire Adji Sarr bi waxu ci waxu ci parce que moom dafay xaar ñu woo ko te xam nañ ne kenn du ko woo. Nous transition ci Khalifa Sal. voilà, balaa ñuy def Sal. wax Mimi Touré comme ci politique parce que Mimi Touré fait dafa Macky Sall 15 mois fait décès. fi dese man sax pas mais ce que je veux dire, mooy Mimi Touré moom léegi génn na choses. bokk bokk non inscrit la opposition bi la Sall amatul opposition mais Ousmane Sonko di questionné Macky Sall li mu wax mom moom moom mooy ah, am doolé légui lu ko neex lay def en tant que président Sonko nee na du démé non, Sonko nak fàttali na Macky Sall ne ko yow mois de mars dañu xeex ak yow ci terrain bi duma la après ci élection maire ñu duma la élection euh, président ñu duma la affaire yi nga bëgg def nag affaire Ben Ali président euh, Tunisie bi gis nga limu mu doon jéem imposer waye momit après dañ ko fa mujj jëlé kon Sonko waxam waxu géré la léegi nag tudd na ba tudd mu Mimi Touré jaaru ci turam mais nee mu Mimi ture génn na euh, benn bokk yaakaar léegi nag Mimi Touré moom ñëpp xam nañ ne dafa bëgg nekk candidate te loolu dafay compliquer tâche Macky Sall Macky Sall mu ngi ci problème moo tax Macky Sall bëgg teggi assemblée ne dafay jiite réew mi ci ay pexeem moom kese Ousmane Sonko nag nekkul duñu ko seetaan nee na nag député li ñu fa nekkoon assemblée di xeex ak euh, waa benn bokk yaakaar. Ousmane Sonko nee na loolu ànd na ci Barthélémy Diaz limu attaquer Youssou Ndour mom nee and na ci waaw légui euh Ousmane Sonko tëkku na Macky Sall ne ko Barthélémy Diaz bi nga xam da nga bëgg dind fexe ba dootul nekk député wala nga foqati maire bi ci loxom lolu mom nee na du ko seetaan nee du seetaan lolu kon vraiment c'est un discours guédé légui Mimi Touré lan lañu mëna xaar ci mom li ñu mën xaar ci mom moy mu mu gën a euh, opposition bi wax ne Macky Sall du fi def 3e mandat mais dinañ xol nak Mimi Touré euh gaay dinañ ko jema fexal mais ñun gëm nañ ne mënuñu ko fexal ndax jigen la te suñu fonctionnaire international nañu jéxalé ci Kaliphone ak Adja Thiaré Diaw Adja Thiaré daw demaat na police gendarmerie mais dañ na ko certificat médical bi li mu wax moy ne yow kenn sifu la xale bi nak nenañu nañu la ba légui waye yaram bi amna ay gañu gañu wéni amna ay gañu gañu ah kanam gi gis nañu ay gaañu gaañu mais ñoom nee nañu loolu du siif léegi avocat xale bi moom nee na ak xale bi ci boppam Kaliphone dañ ko bëgg a euh, euh, nu mu tudd exonéré dañ ko bëgg a seetal ba mu set huit te loo xam ne dafa am ay preuve leer lii nag doy na waat Sénégal koo xam ne dafa jàpp jigéen doo ko même bu dul dara sax waroon nañu ko mën a jiiñ dara waroon nañu ko mën jiiñ dara mais xale bi nee na ba mu bëggee ñu liiraatal ko. lan moo nekk ci certificat médical bi gars yi dañoo bañ mais Californie dañ ko ko jàpp di ko ko liiral di ko liiral mais lan moo tax ñoom amuñu sax copie certificat médical bi en tout cas lii doy na waar histoire la boo xam ne ñun dinañ ko toppal Californie nag lii dafay wane kon Sénégal boo ànd ak Macky Sall maanaam ah, di saaga Sonko kon dafay mel ne daal bu bu la ndara dara daal ñoom mën nañu fexe ba ñu génn la ci fi mu nekk loolu lay nduru mais dinañ xool ndax Californie gars yi dinañ ko woo jàpp ko même bu dul dara sax ci siif

parce que tamit lo xamne dafa am ay audio am ay am am vidéo xaritu téléphone bi tamit ñu ko ci tuddu Cheikh xawma ma nan la tuddu xawma Cheikh Cissé la tuddu xawma mais en tout cas histoire bu doy war la légui ñun dinañu xol fan lay muju mais man dal lima ci jaxar rek moy euh ana jigen yi nga xamne organisation féministe yi nga xamne ne ñoo fi nekkoon di wax Adji sar li Adji sar la Sonko li Sonko la ñom François Hélène Guèye dégguñu leen ñu wax ci wala bok ñom buñu wax est-ce que gëm nañu xale bi Maty Trois Pommes bu waxee est-ce que dina gëm xale bi parce que mom keroog mi ngi interviewé Californie bàyyi Californie muy wax lu ko neex di wax na Ousmane Sonko dañ ko wara japp mom moom Californie mu nee na ko jappé Ousmane Sonko dañ ko wara japp voilà gars yi Mister Shake la rek namoon len bu defal len benn vidéo bu gatt ma ngi nii Amérique wat na liggéey di len laaj ngeen like ngeen partager ngeen abonné vive le président Sonko vive le Sénégal vive yow askan bi ba beneen ñu defal len vidéo merci